gëm wal wallahi lazim loolu laa gëm lamb nag ak coow ñoo baaxoo moom coow li na bëri bëri waaye li ñu naan xaw ma lan niñ ko olof di waxee sax lan jëm bindu waaw ku ñëw ci pind ba nga yem wax na lépp mais tey état physique am ko gisee ndax gis nañ ni ñëpp dañoo jël lépp jox ko ki moom mooy franc et loolu lan def ci mbër waaw noo wax dëgg yàlla sas la ci moom te liñ ko sas it moom xam na tey làmb ji fu mu toll ci moom xam nga wax dëgg yàlla ñun yeneen la ñu am jël suñu force suñu lépp def ci mais moom moo gën a xam fu ko làmb ji toll te comme ni ma la wax rek gëm naa ne incha allah coow lay bëri rek mais incha allah ndam li fii la ñëw bu soobee yàlla. le fait que mënu ko 30 secondes ñii ne mën naa nekk ñii mënul nekk Modou est-ce que gëm na 30 secondes mën na. ay secondes sax mën naa nekk incha allah waaye bu soobee yàlla. <laughs> kon wóolu a baax a baax ah, comme ni ñu fekkee nii rek instant yi commencé nañ ñoo ngi kii ndànk-ndànk incha allah di ñaan yàlla rek mu gën ñu may wér ba ñu ñëwaat ci affaire yi 100 pour cent incha allah. Mm-hmm. sa combat ak Ama ñii ne combat bi du am nañu. non am moom dina ko def parce que lu ñu naan ku xaw ma ku lok avance de bombe comme lekk na avance ma lekk naa ko ala ku yàlla moom dina am dañu ñaan yàlla rek may ñu talak fekk incha allah ba ñu yegg ci ko incha mu mel violence bi rey bekk yooyu noonu porteur de voix nga te Modou loolu lan lan ban message nga jox ci loolu. waaw loolu moom kenn du ko rafetlu violence kenn du ko rafetlu ci am réew. que Sénégal bu ñuy wax Sénégal dëgg naan réewu teranga la Sénégal bu dal moo tax waaye am na yenn violence yoo xam ne moom kenn xam ko Sénégal te wax dëgg yàlla dafa ñaaw trop dafa ñaaw trop chaque jour yaa ngi dégg agression chaque yaa ngi dégg ay rayante fii wala yooyu te loolu lu mën a lu mën a ñàkk la xam nga di waxaat daal état bi xam nga mu gën a jël matuwaayam yokk sécurité bi nit ñi tamit xam nga xam ni ñëpp ay ay bakkan la yor te bakkan dafa foor xam nga ñu toog liggéey li nga am nga yem ci xam nga yàlla mooy wërsëgal lu yàlla jox mu tuuti mu bari yem ci gëm yàlla te dem liggéey àdduna nit buy liggéey dara jomb ko ci life xam nga bañ a yàqamti parce que gëm naa ne yooyu yëpp yàqamti sa wërsëg la rek ay agression ay def yi nga xam ne naka sulul noonu la yëpp pour man yàqamti wërsëg la te yàlla moom baqan bu mu bind moom da koy jox wërsëgam ba tax na yu bari jaru yàqamti nañu indiwaat xel yi xam na xam ni ku fi gaañ sa mag nga gaañ sa rak nga gaañ wala sa pap wala sa ba tax na xamoo nañu delloowaat xel yi bu baax a baax xamoo Sénégal jàmm juñ fi xam ba koy tuddee réewu teraanga mu dolli si waat ba ñëpp nekk ci jàmm incha allah di wax état bi tamit gën a jël matuwaayam pour sécurité réew mi incha allah. tension ak Parcelles. lan moo tax saa bu ngeen di bëri tension bi day bëri quoi. lamb ji mu mel ni mu mel ni leneen lay doon quoi tension bi <laughs> comme ni wax rek. lamb moom moo baaxoon noonu te c'est vrai Franc ak Choc wax dëgg yàlla comme ñaari mbër ak soxla soxlante lañ ba pare xam nga bokk xaw a bokk génération. dem Choc moo ko sax njëkk a bëre. moo tax làmb ji bari coow te làmb loolu la baaxoo daal incha allah mais du dara duñu ay ennemis duñu ay dara bu ñu bëree après nekkaat ci jàmm daal. mais léegi pour cent lañ def de xeeb nañ 100 pour cent. ñoom de ah? ah dama gis comme ci ñun la ñuy roy kay ñun 100 pour cent la ñoom dañu a def 60 wala 80 sax. léegi ba tey baax na rek wane ko lépp ñëpp nañ nekk ci jàmm rek nekk benn c'est waaye. dañoo mën jël jëli ñun ñoo ci aw ñoom luy soog a taxaw la. mais ñun ñoo ngi ci yàgg na te lu naturel la vraiment xam nga kenn musul fenn gis ne ñii ñoo ngi toog fii di réunion lu naturel la ñëpp kenn bu amee combat ñëpp ñëw jàppale ko xam nga mu nekk noonu ba macha allah xam laa di ñaan yàlla gën ko dëgëral te mbëri fi am combat yëpp parcelle yëpp incha allah yàlla may leen ndam. ndam yu sedd guy incha allah franc bi gën a yàlla may ko ndam. combat bi leen jaral parce que ñoom ñaar ñëpp dafa am euh, solo ci seen carrière franc ak sox. képp ku daan da ngay génn ku daan da xaar. ou ñun dañuy taxaw nii di wax rek mais Franc ci boobu moo la gën a gën a gën a xam fu ko làmb ci toll. te xam na ko boo gisee mu ngi ci li mu war a nekk mu ngi ci liggéey bi sérieux xam nga jox combat bi àqam dañ koy ñaax rek yàlla may ko talak fekk incha allah wala 19 yàlla may ko ndam bu sedd guy. Fatma fii ñu jeexalee moom. booy ñaa daf na da leen a naw ci seen 100 pour cent bi. Mhm. loolu bi nga ko seetaanee en tant que mbër parce que loolu tamit sas la ci ñun parce que nit bu ñu nekkee di def lu rafet ba nit ñi di leen ci xool di leen ci naw di leen ci roy sant yàlla xam nga di wax tamit waa parti ñu gën a jàpp que amuñu droit def erreur comme ay nit a ngi xool ci ñun bay jël exemple ci ñun def ay cent pour cent ki deux cent pour cent sant yàlla ñu gën a jàppalante incha allah xam nga may bañ a may saytaane benn mu dugg suñ biir incha allah ba suñuy mébét incha allah yàlla may ñu ko. rendez-vous des arènes allah. fan si rek ah jógee parcelle 7. dem Pikine incha allah jëli ndam li indiwaat ko incha allahu taala bu yàlla incha allah comme dégg nga merci

non yow war na ko wax rek

Voilà.